asalaamaaleykum Senclic maa leen di nuyu leen dalal ci complexe Yacine Coiffure euh, ñu présenté woon tey suñu cliente bi ñu am euh, dañ ko tegal euh, cheveux defal ko closure mais comme dafa tàng période bi ñu nekk léegi soo ko bàyyee mu wàcc daf koy déranger moo tax ñu defal ko genre chignon bànni ci ginnaaw nga xamante ni ak tàngaay bi ñu du ko déranger daal. tey loolu lañ leen indiloon moom lañ defal suñu cliente bu ñaawul bii. voilà sama cliente bi dama ko tegal euh, perruque bu cheveux laa ko defaral comme dafa tàng nii ma tegal ko perruque bi avec closure léegi bi ñu paree brochine ko léegi defal ko suñoo bas suñoo bas bu xamante ni daf koy mën a dem da koy mën a yóbbu fu ko neex mun na dem cérémonie mun na dem génn ville mun na dem fu ko neex daal. léegi comme sama cliente bi dafa war a génn. génn bu ndaw rek léegi dama koy defal make-up make-up bu simple rek boo xamante ne nii ak tàngaay bi nii du ko déranger comme moom teint clair la léegi damay jël euh, poudre léegi fond de teint bi laa koy defal pour teint clair léegi suñu paree. voilà comme sama cliente bi teint clair la léegi ñun dañuy utiliser euh, kii bi fond de teint bi marqueur bi ak éponge bi. moom la ñuy njëkk a teg mooy base bi moom la ñuy njëkk teg ba pare pour euh, pour def euh, make bi fond de teint bi la ñuy njëkk a teg mooy base bi bu ñu paree ñu soog a def make-up bi mais selon ak ten am parce que ku nekk tamit ak sa teint nu mel rek soo ñëwee selon noonu lañ lay maquiller am na pour teint noir am na pour teint clair am na pour teint marron pour teint yëpp daal ku nekk sa teint rek soo ñëwee dañ la maquiller make-up bu baax bu toog parce que matériel yëpp am na fi macha allah fii ci complexe yaa suñu coiffure voilà mu ngi nii moo tax sama cliente bi dama koy defaral euh, fond de teint bi laa koy tegal que dafa xees moo tax. parce que nit ki waroo koo maquiller après maquillage bi di ko changer daal teint eh, bi bi dafa war a nuroo ak teint am voilà noonu lay demee. ñaante bi pare na defal naa ko make up mm, ba pare mu ko defal crayon make up bi defal ko eyeliner bi nii rek def poudre finition bi ci kanam. affaire yooyu noonu comme day génn soxlawu mu koy defal faar bu saf yooyu noonu moo tax c'est pas la ñu koy tegal faar dama ko defal eyeliner bi rek laa ko tegal nii